man ak Kunta ak sunu ñun ñu am formation communiste dañu bokkoon suñu ñu fabriqué mooy ñu bëgg seen nawle bëgg nit comme ñoom bëgg lu ñu am bokk ko bëgg nit dimbalanteeg nit dañoo jiital alal ak xaalis loolu mooy communisme formation boobu lañ bokk boo tax lépp lu ñu am dañ koy jox suñu réew ci loolu lañu nàmp te mu wane ko nag doxee ko ba foo ko fekk mu ngi seen lu gën ci Sénégal ak lu mu ko jaral dina ko wax ndax Sénégal jëm kanam ndax ci loolu la nàmp loolu la mën kii am na fulla am na fit yàlla may ko mu mën a bind mën a wax macha allah mënoon na génne xel mu leer xalaat bu leer génne ko ci xool bu leer ak xam-xam bu leer kon tey jii Sénégal ñàkk na doom joo xam ni borom xam-xam la doom joo xam ni amaloon na ko njëriñ doom joo xam ni lépp lu mu doon wax day leer ba ñëpp mën cee nàmp kon Sénégal tey ñu ngi jooy Ibrahima seen يالله على تيرو اجانا ابراهيم سن يانكو يالا خري اجانا نيكو باخ لاون كيلي فلوون تي بوليتيك واي سيتويان لاون ابار انتير خم خم وريفم ديكو ديف ليغيال اسكانم با سونو بوروم جيليه كوف فيب فومو ورونا واخ واخنا فومو ورونا بيند بيندنا فيه.

Euh, syndicaliste la bu ñëpp également nek également euh, responsable politique membre fondateur du PIT. man personnellement sama relation mi ngi gëna a dëgër bi nga xam bi. euh maa ministre de l'industrie et des mines président Taboko, président du conseil d'administration de Miferso pendant ay années ñuy liggéey même bi fa joggé également lépp lu xew ci réew mi man ak mom dañ ci daan échanger kon vraiment tay Sénégal ñak na ñu ñaanal ko Yalla suuf ci mexé jëm.